waaw waaw def na ko jàngee de war naa ko wala wa asaw defal na gars yi da ngeen di xam di xam waaw da waxal ma dégg wala wa asaw lil alamina Thank you.

tànnal boppam yónni ka ndax dakaa yónni ka waaye wax déedéet ndax daka yónni ci xeetu ñuul mi déedéet ndax daka yónni ci réew mi ñëpp déedéet daka yónni ci Afrique déedéet lil aalamiina ku mu bind donte sànqaleeg nga ci bu dëgg wallaay ngir mu wan leen yoonu njub bi wayof matal njub bi nag leen na leen ci jublu objectif benn la mooy raxmatal ñëpp wayof matal waxu bàyyi seen bàyyi lay na lu ne gis naa ko an ba an xasiisuun wa ruhbaan information ya benn la mbañ bu démb ga benn la bu tey gi ak bu démb ga benn la sëñ Mataari ñëw daal di li ma yër ak a bañ waaye gisuma ko mel nii waaye nag bu hum akbaru wa anhu akbaru wa anhu wa yaqlubuuna shuyuuxan xayra

lay Am Because it was a good way. ko rey rek na xale def Bye. may ma ma ñëw da nga may wan ne yaay borom koñ bada bada bada bada bada bada fana ilo bada fana ilo dana tanda ta musala bulade và thầy lên nhà thì ta là như thế là lại lại lại lại lại lại lại lại lại waaye nag bàyyi góor bàyyi góor du nee na wu góor jaar ci loolu na ak lii nee na ñoom dañoo anna allaha yàlla huwa arsalahum huwa moom mooy ki nga xam arsalahu moo yónnil maadi ba li rahmati xalqi ngir yërëm mbindéef fii daaray ni yaa faami àdduna ak alaxira ma ñëw téye fi daaray moom ñu bàyyi Seydou Saara nga toog mu ko toog rek. la ilaha illallah la ilaha illallah. boo déggee ba ba ñu bàyyi ñëngu lay sëy naa isaa la ñuy wax kon nay sam ñëngu waaye ñëngu mii mii mii amaanatullah yàlla moo yónni bàyyi laay bàyyi mu ne moom ne waxul jaahiluuna alayhim fële mu naan law lam yakun rahmati xoola yërmande doom gi doomam gi taaw bi bokk na ci yërmande gi bàyyi laa yore nag wooteegul bàyyi sëy bi sa maam mu nga ca gaalam génn te seen Ablaye Diallo mu ngi ci port bi yor bureau bokaal yi ñëw Ablaye Diallo di gis reeru xayru xalukulaay ci gaal yi waaye xamul kan waaye xamul kan maa ngi ñëw ci man ba bés góor gi toog ci bureau bi di xool gaal yi bàyyi laay tee ci moom da nga Abdoulaye Diallo mu ne ko yow foo ma xamee. foo ma xamee ko la sama tur. bay laay lu ma ne ko Abdoulaye Diallo jaamam yàlla bi mu ne ko waaw. mu ne ko ndax dem wala gànnaar mu ne ko demoon naa ko lu tax dellu ko. lu tax dellu woon mu ne ko sa bopp sëriñ moo wax sama waajur ne ko bu mu fi indi ndax man ka may topp yonent bi lay doon xaw ma xaw ma nag fan la waaye kii dina daga sama maam bàyyi lay doon dina ma daka maa ngi naka maa ngi naka leer googu ngay wër lu weer weer ak yi leer jege gis muy leer ci gaal yi man gërëm dañ ko mën a ko bu ëllëgee dat sàngam benn àngam dinaa woote sama wootee bu la fa kenn jiit mu ñëw mu jël taawam bi jox ba pare jël siiw Babacar pour moom du kenn moom la bàyyi laay dox dafa ba pare daf jox ko wéen ci lasraar mu namp ci ba mandi man ngaa ngi taxaw mu ngi bàgg rek taawul sekk taawul sekk xóor moo yor ñaar moom bu ñëwee lépp sotti maam Seyid Daga nag maam Mamour gaawal boobu ñu ko ci yox génne di jàpp war a ñëw njàpp Mamour nga bëgg xaw a yéex maam Seyid dafa gaawal Mamour moo daka laay mu ne ko njàppum góor day gaaw gaawal gaaw gaawal gars yi xoolal ñu ngi wër limaam di yoot dégg nga Maria di yoot di yoot ci yàlla Moussa di yoot maam si dina mal fekk maamam laa jàll ngi ca man di tegi dëkk ponkal mi na tël na jàkk borom à l'âge de 33 ans sama maam ak ñuulaay bi taar ba fit wa gaawaay ba maam doon xoola maam xam ne le problème du am maa ngi rafet mais ci di daa di raam boobu daal di sa sukki ci loxo kanamu maam Seydi tegee loxo ba foon foon naka asalaamaaleykum yaa Seydina Issa Rohla ibnu Mariam mag ñi ne ah. la ilaha illallah. mu daal di xool sama maam Abdoulaye Diallo waxuñu ba léegi nekk nii ca war ma jëm bu ma Abdoulaye Diallo xool sama yàgg ma wan ki ginnaaw dem taxaw maam Seydi ne maam mën a. kenn ku bëgg koo jiite da ngay xaar ba sa waajur génn tudde limaam ngay doomam tuddaay mën a waaye gars yi bu leen fàtte bàyyi laa yërmande la yërmande la